daleen ak jàmm mbokki internet yi di seetaan Buzz M TV capitaine Touré moom nag daal dinay addu si mbirum Bassirou Diomaye fay candidat ci dem bi nga xam ne nag kii di Amadou Ba daal dina dugaloon nag ab recours ngir ñu daal di koy kale ba munu ba du mën a dem si les élections mu nekk nag mbir mu doy waar moom capitaine Touré daal si dikk nag ak Eh, jangat bi nga xamne def nako ci ak revelation yi nga xamne tamit daal nañ ko ci amal tamit eh, dinañ ci dik dégtal len bi le vidéo mu nek vidéo bu amam solo comme ni koy waxe rek bu fekke gan nga bul faté abonné ci chaîne bi di bes mtv like vidéo yi bu fekke yag nga ñu suivre ndax lolu dina ci am solo capitaine Touré daal dina ci def ap revelation bu ama amam solo jangat bo xamne manam boko boo mom dalay leer kané nak jaay dool gi dafa leer te dafa dafa manam, manam dafa feñ mbir mi mom dafa feeñ leer nañ ñëpp xam ne kii di Bassirou Diomaye Faye moom candidaturam dafa leer nañ dafa wara nek candidat ci élection présidentielle 2024 mais nak yoon bi nga xamne nak ñang koy dekkmal nii nga xamne ne Amadou Ba dafa na ab recours recours bi nak euh, japp nañ ne euh, conseil constitutionnel mom duñu bayyi lu ni mel muy capitaine Touré le mu ni bu fekkente ni wa pouvoir bi. yii lañ ciblé maanaam yii lañ joxoñ ñi moo tax ñu war a su euh, moo tax ñu war a attaqué euh, dossier wu Bassirou Diomaye Faye ak seex Tidiane Dièye nee na kon daal gars yi dóor nañ seen loxo si ak si tënk rek loolu bëgg a wax maanaam gars yi daal am nañ panique maanaam tiit daal yox yoxi waaw ah, bu fekkee bis njëkk moom la ñu wax mooy appartenance à une entité euh, politique de sous maanaam am ak lëkkaloo ak parti politique boo xam ne dañ koo tas ak production des fausses pièces devant le conseil constitutionnel maanaam jël ay dossiers yoo xam ne wérul daa am ay faux ñu dem yóbbu ko ci conseil constitutionnel leen mooy ñaareel bi ci des mooy coalition boo xam ne jaarul ci yoon bi ci topp mooy benn parti boo xam ne dañ ko maanaam nekkul méngoowul ak sart yi daal euh, bu fekkee boobu dafa bokk ci leen euh, investir muy ñeenti sart yooyu maanaam bu njëkk bi nee na li njëkk a wax mooy appartenance à une entité politique désunie maanaam bu fekkente ni ci wàllu parti politique boo xam ne dañ koo tas nee na moo leen investir nee loolu nee loolu doxul daal ndax loolu concerné wu leen ndax boo xoolee alinéa 3 bu L57 mooy loolu mu wax nee na loolu mooy weddi daal li gars yi di wax mooy wane ni daal gars yi teguñu fenn li ñuy wax te duñ si am ndam rek waaw loolu la bëgg a tënk rek moom capitaine Touré Seydina Omar Touré. mu bëgg wax rek mooy gars yi fi ñu sukkandiku yëpp dara du si wér ndax maanaam li leen ko doon aaye mooy ñoom ñu dem nekk candidat indépendant te it maanaam article sorry euh, alinéa 3 bu article 57 bu code électoral bi dafay wax condition yi nga xam ni ci la candidat bi mën a nekkee candidat indépendant te ñoom defuñu ko ndax ñee dañ leen a investir kon ñoom affaire bi daal yitteelu leen kon daal la bëgg a wax gars yi dañuy tertere rek mais du mujj fenn ndax alinéa 3 bu article 57 bu ket bu code électoral bi sorry code électoral dafa wax ni et candidat indépendant celui qui n'a jamais mérité dans une partie politique ba ca mujj manam candidat indépendant qui mëna doon moy ko xamanteni bi bii milité ci parti politique wala ba bayé politique c'est parti pour matna Euh, at te yi daal yitteelul loolu da yitteelul gaa yi daal Cheikh Tidiane Dièye ak Bassirou Diomaye Faye daa bëgg wax ni rek gaa yi duñ si am ndam kon na gaa yëpp dalal seen xel xam ni sax nag nday ñi bill gi muy président Ousmane Sonko mooy bokk. panique euh, daal lañ def xam nga mooy li may faral di wax naan borom jëmm ji napp nàcc di wax jàmm itam nag ku la dàq jotu la lu mu for la nag. mais nag ku bëgg a yéeg fu sore sore dem fu sore sore ci kaw te ku la sànni xeer nga wàcc fayu da ngay yem moom ñii seeni bal moo fay seen biddiw moo fay ci boppam xam nga biddiw bu fay nga bëgg ko jafalaat day métti su fekkee sa biddiw dafa fay nga bëgg a gis ko biddiwam tàkk hmm? leeral ñëpp nga bëgg ne yow daal li sa biddiw fay biddiwam dina fay noonu da ngay nax sa bopp. nañu dem liggéey lu lu leen askan wi wóoloo te jaamu ji yàlla moo gën ñoom benn solution boobu laa leen jox nañ dem liggéey leen askan wi wóoloo am réew ay caaxaan gañewu ko ak i tappale ñoom bu mënoon ci lii ñuy def dara affaire Sonko fay na bu yàgg dañoo xamul ne yàlla àndut ak ñoom loolu dañ ko desee bàyyi xel loolu mooy seen problème. waaw Pape Ngagne nag euh, man nag contre ma ko moom waaw vraiment contre ma Pape Ngagne ci benn côté ndax moom maanaam bu ñu wax loolu ñuy wax. di euh, autodidacte maanaam koo xamante ni bii jàngul maanaam jaarul ci yoonu journaliste bi gars yi di jaar daal comme nekkul dem ay sesti ñu tàggat ko mu dem université non non moom jaarul foofu maanaam ak góor góor góorgóorlu moom moo tax mu nekk journaliste comme sanru Ahmed dara yooyu moom lañ mais bokkul ak ay sanru maam Mamadou Ibra Kane ay Moustapha Diop nga xam dañoo dem ñu tàggat leen noonu et puis toll bu ngeen seetloo mboolem candidat bu pare parrainage bi amul kenn ku ñemee génn wax Pastef rek moo ñemee génn wax ndax xam nañ ni anytime man nañ leen ak kale mën nañoo kale gars yi loolu tax gars yëpp dañoo ragal fi ne moo tax kenn génnul wax ñun rek ñooy génn wax fi mu ne ndax ñun moom ci lu wóor a wóor a wóor waa APR génn ñuy wax parce que ñoom xam nañ ne bu yàlla ànd na yàlla ànd nag ñoom lu mu tuut tuut bu ci yàlla ànd nañ ñoom mbiri ko moom xanaa dañ naan daal jégle woon wala deux mille vingt et la woon. di ko fàttaliku waaye bis nañu tee la Sénégal yi gën a taxaw gën a gën a lëkkaloog Sonko di leen gën di bañ di leen gën di wan ginnaaw mais loolu ñoom ban jàngat lañ ci def ñoom wala man dama yaakaar ni léeg-léeg sax na toog def jàngat ci boppam ne ah man ndax dama dellu ginaaw wala damaa jëm kanam mais ñoom loolu duñ ko def ñoom hmm? ñoom duñ ko def vraiment man dama leen di xool dama leen xaw a yërëm sax. parce que nit koo xam ne loo ji ma lal ñu laali ko bala nga koy lal sax xam ne na nga ko lal te buñ ko laal ji trop tàng nga jëm xam nga ne mbiru Sonko buñ ci mënoon dara ba léegi euh, conseil constitutionnel sax dafa yegg bañ naan ndax recevoir nañ ay papier wala recevoir ko mais nag ñàkk nangu dogalu yàlla rek. ñëpp génn rek ne Sonko day bokk nag na ñëpp génn na ñëpp génn te xam ne Sonko day bokk nag ñëpp waxandoo waaw. conseil constitutionnel xam na ne walaakaan yi nga xam ne ñoo doon jëm a teree jox Sonko fii si parrainage am can ndee la xawma xawma lu ko kenn war a tuddee ak Issa Sall xam nga nag APR googu noonu ay nit ñu tekkiwul dara danañ xam ndax ñoom ñoom ñoo xamee dëgg ñoom wala ñoom ñoo xam pouvoir ci kaw conseil constitutionnel wala wala wala déet Sénégal yëpp nañ toog nañ nañ génn fas yéene taxaw xool ba xam ñaar ñooñu nga xam ne tekkuñ dara te France war na leen a tekkuwu leen dara France rek tey ba mu bëggee Karim Wade nekk ab candidat am ñu ne ko daa am daa am ñaar nationalité France fexe na ba génne dégg nga Karim Wade sa tur Karim Wade sa seen te seen te seen te seen fichier ba war na ne Karim nekkatu ko donte loolu dañ koo génne xam muy aw lay waaye dafa mujj nekk lu leen weer. ndax kon lañu doon wax ndekete woo kon kon dëgg la woon waaye ñaareel ba génne ga yéex na ndax fekk na processus électoral bi départ bañ déposé kii dossier ñu waroon a déposé dèjà kooku moom weeru na waaye ñoom sax ñu ngi doon ñu ngay jéem a jàllale Karim Wade pour xettali ko war na seen doomu réew la ñu ne nañ ko dimbale pour mu participer ci élection Sénégal administration Sénégal nag ñoom taxaw seen doomu réew moo xam ne nii bu leer nañ ñu ne yow duñ la jox li lay pour nga bokk